alhamdulilahi alqaili fi muxkami tanzilihi inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun wasalaatu wasalaamu ala man buisa rahmatan lilaalamin sayidina wa xabibina wa qudwatina muhammad al amin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tarassama xutaahum bi ixsaani ila yawmi din sadatuna al ajilla ayuha alxudur ayuha alxaadiruna walxaadirat assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi tàmbalee suñu wax ci turu suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan mu dotti waamee xéewal ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dellusi si ci daaray zeyd ibnu thabit féete ci ñàkku rab euh, ci quartier baax daara ji oustaz Maguette Cissé di sëriñ daara bi ànd ceeg soxna Aïcha Guèye ak jàngalekat yi ak parents d'élèves yi ñu ngi nuyu euh, meeru dëkk bi di nuyu sef de village yi di nuyu chef de quartier yi di nuyu imam yi di nuyu jàngalekat yi alquran yi ak jàngalekat yi féete ci yeneen école yi di nuyu am di jàmm yi ak dëkkandoo yépp di leen xamal ni ci daaray Zayd ibnu Thabit ñu ngi ci beneen édition boo xamee ni promotion la bu ñu génnewaat yàlla dogal na at mu yàlla wërsëgal ñu ñu mokkal alxuraan ren yàlla dogal ñu am juróom-ñeent yu mokkal loolu di ak sant yàlla ñu fa yéene nag sànni weneen saan wu jëm déwén di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañu dégg ko ngi saan wax euh, di nuyu xalifa généralu Canaba Baye Cheikh Abdourahim Seck euh, ak imaam ya mu nekkal Canaba yépp imaam Cheikh Amadou Seck sëriñ alxasan ñaan seedu village ba alxaaji taala siise njabootu euh, mambiraan siise te wéy jur ci borom daara ji sëriñ àndala siise ndeke noonu nuyoo yi jóge fii ci daara ji dem ba canaba noonu la tasaaroo ci kili kër kilifay diine yépp ci àdduna bi tasaaroo it ci daara yépp ci réew mi kon incha allah dañoo bëgg door liggéey bi comme niñ ko waxe woon sunu magi daara yi àndoon ak Oustaz Maguette démb ca démbi démb ja moo xam la ko daree Babou Salaam Mbos jaar ba Côte bu ñu jullee jëlee na yóbbi toog ci loxo yi bàyyi Ousmane Touré mën na ko yóbbu ci xarit yi mu daan àndal yépp ak wëllër yi ak am di jàmm yi waaye particulièrement ñu nuyu euh, waa Thiénaba TV directeur Alpha nekk ca bopp ba yabal délégation bu am solo sëriñ Njàmme gi ñëw ànd ak sëriñ Talla Sarr macha allah mu nekk délégation bu am solo ñu ñëw fa seen couvrir liggéey bi incha allahu taala danañu ànd ak sunu ustaas ci liggéey bi di ñaan yàlla ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin chronogramme bi nii lañ ko bëggee ginnaaw xale yu jigéen ñi ñëw nañ ba toog ndongo yi tamit ñu góor ñi ñëw nañ ba toog dañuy tàmbali liggéey bi buñ demee ba ci kanam tuuti ñu dugal xale jigéen yi ñu defar seeni anachid maanaam seeni prestation dalal gan yi bu ko defee ñu buñ taree ba 10 heures xale yu góor yi ñoom dinañ dugg si incha allah mooy soldat yi def seen prestation ñu continuer njàng mi ba 11 heures ñu def benn nachid bu ñuy wax takrimu li Falastin xam ngeen ne suñ mbokk yi nekk Falastin di soldat yi nekkal ñu fa ñooñu it am na benn hommage bu ñu leen war a rendre ginnaaw loolu incha allah bu ñu demee ba midi et quart euh, am na benn discours bu am solo bu aju ci njariñu alquranul karim ndongoy dinañ ko def jamono jooju nag la ñuy dugal ñi mokkal alquran nga xam ne ñoo moom bis bi bu ñu leen dugalee ba pare daal leen di déglu ñu jàng bu paree am na benn théâtre bu gàtt bu ñu leen bëgg a defal boo xam ni dafa am euh, message bu rëy boo xamee ni oustaz liggéey na ci war ko yóbbu ci peuple bi théâtre boobu nañ ko def bu ñu paree jox directeur oustaz Maguette Cissé côté ay 13 bu tegalee mu def discours am bu ko defee ñu génne kàddu yi incha allah séddale xale yi seeni euh, neexal jox leen seen diplôme yooneen mokkoon nañu alxuraan quatre quatorze heures fu mu jotee muy deux heures incha allah bëgg nañu jàng xatmu bi. daldi nag dem yëkkati jotaay bi dem xewlu ci ñu ñaan yàlla noonu lañ ko bëgg yàlla ñu yàlla dimbali ñu tàmbale noonu te jeexale ko noonu di kontaan ci ñi teew ñëpp ak ñiy waaj a teew di soññaat jur yi ñu gaaw génn ndax ku ñu romb doomam moom duñ ca mën a dellusiwaat kon bu ko defee incha allah dañuy door liggéey bi ci ndongo bu ñuy wax Asmalik Njaay nañ ko déglu moo mooy ubbi jotaay bi ak alquranul karim bu ko defee incha allah bàyyi mbere njaay mën naa ñëw ci taabal ji jege si أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون العظيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة من يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا فقال لأهلهم كسوا دعوتك فاستمع يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا كذوا فيكون لزاما صدق الله العظيم kaay teewaay bi ngeen ñu defal neexaay ba xam nañu ko kon nag ziyaar nañu leen booleeg di leen tatagal màggal de mooy li ñu ngir yéen te def nañu ko bay booy de yow mi ñu jël jox daara ji desewoo tey ji luñ defal baay ci cant nañu ko yaay baaju dem bala fi sax de yaay yaa gën yaay ci cant ndaxte sa xol bi lépp yaay jox nga ko bay boode ak ni ci bëggu doom di ko muñ ay at sa doom du la wor muñ ngaa ngi kay bége ko bay booy de yow nelawoo li tax ñu wax lu ni mel mooy kat ustaas bi nga jël jébbal ñu xam nañu ko suñu xol yi nañu tey suñuy xel dal moo ko waral xam nañ lu baax xam lu bon am diine def nañu ko ñun ñuy sant suñu ustaas bi tax ñu mel ni ni tay di sant yu baax yi jël ñu dénkuñu ko gis na ko tey amiin amiin rabbana na ñépp wax li ñu wax ndax nangu ñaa الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله من عرفات فاذكروا الله لها عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس الناس أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب sadaqallaahul aziim billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim yaa الذين يلونكم من الكفر الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم هم رجسا إلى رجسهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين مرة أو مرتين ثم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتيناه كتابا

آمين تعلونا أبدا آمين

يشفي صدور الجاهلين يا أمة السنغال يا علماءنا والآمرين يا أمة السنغال يا علماءنا والآمرين ورجالنا حمدا لرب العالمين المالك الملك المبين يا مسلمون تفاقروا بالدين اعتدال اعتدال اعتدال أمام طرب أمام طرب أمام ضرب إلى السماء Dóor ila sama Dóor amaam mizaan Dóor amaam Cissé ila al amam annakum warisata al anbiyai wa imadatin kibarakum warisata al anbiyai wa imadatin ahilu أهلوا أهلوا أهلا وسهلا يا ويلة الأنبياء وعبادتهم اعتدال اعتدال خلفكم أمامكم أمامكم زي avancement développement du domaine yëpp culture انتباه économie sociale santé xale yi ëllëg ñooy doon réew mi ëllëg ñu bàyyi leen xel خلفكم زي أمامكم ما شاء الله Serigne Mohamed Cissé Serigne Baye Cissé Mourtada ñoo ñoo yor soldat yi ndax ñoom انتباه